asalaamaaleykum mbokk yi tey la alxemes fukki fana ak juróom benn ci weeru rabiul awal muy weeru gàmm ci atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ñett ci weeru octobre ci atum ñaari junne ak ñaar fukk ak ñaar fukki fan ak juróom benn dafa bokk ci lim yu fàtt yi kon tey ci alxemes ji rafetul alxemes ju nekk nag sunna la ci ku ko man mu woor ko ñaanuk bis bi yow sunu boroom yàlla na nga nu defal yërmande lu bàyyi ko fi yow yàlla na nga nu jàpp ndalal ak njub ci sunuy mbir rabbana aatina min ladunka raxma wa hayyi lana min amrina rashada rabbana aatina bi jëleef na ci sunu yaay aysa yàlla na yàlla gërëm ko mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na jibril dañul di ma dénk dëkkandoo ba ma yaakaar ne dëkkandoo day donn xadis bi buxaari ak muslim nettali nañu ko an aïsata umul muminina an annabia salallahu alayhi qaal maa zaala yuusini jibrilu bil jaari xatta sanantu annahu sa yuwarrisu axrajahu al buxaari wa muslim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 dina fenk juróom benn waxtu yu tegal juróom fukki simili ak juróom ñett di so juróom benn waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak juróom ñaar yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin